سخنا عين دار هدوج لبقى سخنا عين دار هدوج لبقى سخنا عين دار هدوج لبقى سخنا عين دار هدوج لبقى سخنا عين دار هدوج لبقى دوج لبقى دوج لبقى ndam bépp yow la ñoo ngi lay bëggee soxna Aida ay sang ñoo ngi lay bëggee waaw ñoo amul dëndandoo Serigne Bethio amul dëndandoo Serigne Bethio la defal te di la ko yégal amul dëndandoo jërëjëf ci tur ñoo ngi leen di ñoo ngi nuyu sa bunt yi madame Thioune sëñ Bacco sëñ Bacco yaa Adja Saliou jërëjëf Thioune sëñ Bacco ah, waaw waaw um day daara bopp de daara dara bi Ahmadou ñoo dikkoon tey bu tedd ki ah, waaw di sant si Ah, waaw di toog si waaw ah, di ñaan si màggalu sëñ Basiru gii nu dëgmal waaw ah, sa si yëpp mat ci wàcc waaye ñun ñii day kenn ku ne suñun suñu xool mi ngi lux luxi ngi sant sëriñ Basiru wàcc sëriñ Basiru waaw waaw waaw moom day waaw sant nañ ci ni ñu dimbalee waaw yittewoo defaru gi waaw saa su ne suñu bakkan suñu yóbbee suñu def loo xam waruñu koo def waaw ñuy tuub di regretté waaw ngir rek bëgg ñu def loo xam ni waaw day safaanoog say say bëgg-bëgg waaw loolu nga ñu sóob mu yittewoo defaru waaw tendre vers la perfection boobu nga ñu dimbalee waaw ci ñoom sant bu baax waaye ñoom sant tuum ci liggéeyal sëriñ bi ci lii nga ñu sóob waaw moom temps amul réunion yi moom jëf ji moom toog ajjuma yi jotee jot moom lépp ñu nekk ci waaw moom ndekete yoo yooyu nga ñu defloo yaa ñu nekk ci li sëñ Saliou waxoon def leen sëñ Mbacke muy seen yitte te yëgul ko yow yàlla dimbali ñu def si Mbacke muy suñu yitte barki sëriñ Touba wala si man sant si lépp moom kàddu gi moom buñ koy teewee fii waaw moom moom fi lay waaw fi lay ñuy fanaan moo sant waaw di ndokk rek bi nga xamee li li feeñ ak li nëbb li ci nekk mooy sant la képp tuun donc ñaa ngi rek loolu ko wér trois cent soixante-six bi waaw ñu daal lañ tamit ay jëfu moom ko biñ koy gisee ay bale waaw ak i râteau nañ tamit saaku omo waaw indi nañ tamit ay euh, ay madaar waaw xeetu yi yi xam ni moom la raxasee waaw indi nañ tamit ay ay pot waaw lépp rek waaw si jëfu ci xel xeet ko loolu cuun waaw ñu ñaan loolu tànk ku wér بالهدى دائما دامو لندى نزل إنا ما لردى بالهدى وكرم بسقامة يخرج إلى الجنان منهمة صل وسلم يا قدير على سرادك المنير وهو بصير والذي خلقني ولمهمة يا من كفاني كمدى على البهي أخمنا وليكن بالخميس وعنده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا ابنا من تراب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا ابنا من تراب الدم di siyaar gën gàttal di siyaar di ñaan ci kattanu sëriñ yërmë ndem ciun ngeen yàgg fi lool te wér ciun sang bi sa taalibe yi bopp yi tey yoo ñëwoon siyaar si la sa daara ji nga xam ni sa yi bopp la di waa daaru salaam njurul ñoro ñoo ñëwoon siyaar si la sant si la ñaan si la te ñaan nga yàgg fi te wér ndax saa su ne maa ngi leen di sagal ci sa kaddu yooyu bi ma ko déggee ma jëlee ci kerse bu rëy barki sëñ Bàcc léegi te yow ñun duñu ci dara waaye ci ñun sagalul la yow yaay sagal sa bopp ci ñun barki sëriñ Bàcc ndax sa wax jooyu bi ñu ko waxee la daara ji ren na doog am 100 pour cent 17 avril kat amaan na sa wax jooju boo ko waxuloon amaan na ci yoggooral ga ñu newoon rek la ñuy ne barki sëñ ba waaye waaye fi ci teg mooy dang nanu jëwriñ anam booloon waaw cuun moom de màggal bi ñu ngi ci fii mu toll am na ñaari mata sas waaw jëwriñ maxarikan di topp jëwriñu daara ji waaw di jàmbaar mu sas woon six cent mille tàbbi six cent cinq mille moom ak soxnaam maam Fatou Diak mu sas woon cent mille tabbi 105000 waaw ñeneen ñi ñepp fi mu toll ni xajal na seen sas ta fasiyene di ñaan ci sa yermande le 10 bi ñepp matal waye man yi na ma dimbali ndax yow ya ma dimbali ba ma xam ni yëf yi yow la ndax daara jii li ñu pire sans daaru salaw njuur lool la ndax yow yaa samp daara ya ma fekk ñoro ca daara ja def ma jëwriñ ne ma jëwriñ ma ne daan tul nga na ma doxal la yow ñun jabon bi sax jabon la ya yaay suñu nday yaay suñu bay daari ji yaa ko moom yaa nu moom moom lépp lu nu moom ndax kat ku ne fa nga dekk bo naan bërëb di jog dang ko yóbbaale waaw ciun pan bi pan mu da la waaw muuraake la bii paan bii cere la waaw waaw cere jii laalo wuñ ko n'importe quel laalo laalo mépp lañ ko laalo cuun ku ne mbaxal ne saalum suba bële noflaay moo ca ne waaye nag teg ci a sen natal bu rafet bele bu yaañ ji bële ah muy jam ak sangam barke Sëriñ Béthio jaamoo jam ab jam sangam dun dara lu ko lu dul jaamu Sëriñ Béthio cuun jaamoo jam ab jam sangam lu ko lu dul jamu sëriñ bee ci tur jaamoo jaam ak jaam sangam dara gën a lu ko lu dul jaamu sëriñ bee ci tur jaamoo jaam ak jaam sangam dara gën a lu ko lu dul jaamu sëriñ bee ci tur dara gën a lu ko lu dul jaamu sëriñ bee ci tur jaamoo jaam ak jaam lu dul jaamu sëriñ bee jo jaamu jaam jo ak jaam sagam sama jaamoo lu ko lu dul jaamu sëriñ bee jo jaamu jaam ab jam sangam dara gëna lu ko lu dul jamu sëriñ be ca jam jam ab jam sangam dara gëna lu ko lu dul jamu sëriñ be déedéet bi demoon depuis daaw la woon ba tey ñooy Thiès boobu sax neew ma ko woon ndax dama ne woon déplacement ñu wax ak yow ba li leen di leen jàpp ci dossier dañ leen di gën a xaar waaye boobu ba léegi bu ñu ko jàppee muy mel ni événement yi day am lu ko toxal ba keroog ñuy waxtaan rek kenn ci mbokk taalibe yi ni ma jëlee si àll ba ne boobu ba léegi ñu jàpp muy muy tox te ñu ko def man leen dañ ko def samedi boobu calculé wu mooy sax ni ndax si yéen a ngi soog a ñàkk ñu ne waaye njort naa ne rek ni bu ñu jàpp samedi dina mën a nekk.